c' est à trois jours des élections lañ ma door a dugal ci groupe ba. man Moussa Diakhaté. ku doon gérer groupe bi. j'ai appelé mu ngi may dégg un ser président Pape Diop njëkk a woo su ko li xew man yëguma ci dara. je suis impliqué en rien du tout. moo El Hadj Kassé je crois xaw ma Kunta ci la ñuy dugal ci groupe yi. Hmm. ñetti fan. du t-shirt du casquette du moyen de campagne parce que ku nekk sa bopp da lay dool misaal. Hmm. bu nu jël jógee. ci le candidat wala la coalition qui gérait le candidat yow mii doy nga ma seede le 16 ba may lancé. Sorano Sorano di investir Amadou Ba di mobiliser 1500 femmes du dërëm bu jógee ci Amadou Ba wala Benno Bokk Yaakaar suma alalu bopp laa ko defee. su fekkee nag ñu bëri noonu lañ jëfeek ñoom nag ñu bëri danañ ak duñ téye seen loxo man c'est à trois jours de la campagne la ma Farba Ngom que je remercie au passage may deux cent t-shirt moo tax ma def caravane bi ma def. Hmm. su ma ko nattee benn on était très mal organisé ñaar dafa mel ni dañ doon siis ñenn ñi ñett coow loolu ngay wax dégg naa ko que le président. voulait changer de voulait changer de candidat mel ni Ablaye wax dégg naa Ablaye Sow wax ko man de président waxuma. Mhm. dégg naa Ablaye Sow wax ko dégg naa yeneen député it wax ko loolu nag c'est le problème entre Amadou Ba ak Macky li tax nag sama xel ñaaw ci muy Amadou Ba bi mu paree di génn. Mhm. dafa sant président Macky Sall ni li ko waroon yëpp def na ko je peux pas être plus royaliste Ba mënut a génn sant Macky Sall man ma génn wax lu contraire te man allié rek laa kat nag damay bañ xam nga nag béy du yeewi li ñuy wax na gan du yeewi béy mais coow li li am mooy on est à des élections li am mooy lu most am ci Sénégal mooy Bassirou Diomaye Faye gagné na au premier tour. waaye loolu ngay wax effectivement euh, nit ñaa ngi koy ruumanda li am mooy gis naa des gens yoo xam ne nii mën naa juum mais jàpp ma ni loolu mooy seen électorat. ku mel ni Khalifa Sall ku mel ni Idrissa Seck en tout cas liñ leen accrédité jàpp ma ni seen électorat nii la toll donc dafa mel ni c'était plus ou moins un référendum mais aussi li voté néew na. pourquoi les sénégalais duñu voté ji cette question là yéen taskatu xibaar yi war ngeen ko poser mhm. parce que li ñàkk dem voté moo ëpp lii c'est une mine la majorité d'une minorité bu fay jomaay mais au-delà de jomaay pour bañ a xajamal victoire am mhm. war nañ wax pourquoi sénégalais yi du génn voté ji ñun politique war nañ xoolaat suñu bopp parce que c'est pas une première tout à fait voilà parfois dafay dafay euh, waaw tout à fait euh, war nañ ci taxaw ñu xoolaat suñu copie je parle de la classe politique de manière générale. ndax offre yi ñuy def moo jëlul totalement en compte les préoccupations de des sénégalais ndax suñu taxawaay la ñu sénégalais yi meree consort loolu defe naa ni il faut s'assumer taxaw def rétroviseur defaat ñu amaat. link bu am ñun ak les population pour que bu ñuy voté ji le maximum de Sénégalais puissent donner leur opinion sinon mooy tax frustration yi di gaaw di mm. bari bu abstention bi amee di wax Sénégalais yi aussi la meilleure manière de changer ou d'améliorer ou de prendre en charge ses préoccupations mooy nga jël sa carte dem ci bulletin bi dem voté ji set ki la neex mais daal l'un dans l'autre cela nag n'enlève en rien quand même la victoire unique pour une première dans l'histoire du Sénégal ñu dem une élection quelqu'un qui a moins de cinquante ans mmh. un jeune par alors qui n'a jamais dirigé cinq personnes mmh. de la prison devient président de la République ay na yéwén c'est une nouveauté au Sénégal d'ailleurs ñu bëri à l'extérieur te demande lii nu mën a amee lii nan la amee ça c'est aussi une victoire de la démocratie sénégalaise ñu mën en quinze jours am na ñoo xam ne depuis dix ans ils n'arrivent pas à faire une élection mm-hmm. nous de 15 jours, on organise une élection, saluer l'administration qui a piloté ça, saluer les, les forces de l'ordre qui ont accompagné, la presse mmh. qui a couvert, mais aussi le citoyen sénégalais qui avait compris que c'était une compétition électorale démocratique. Ñu dem ci Bassirou Diomaye Faye yàlla def mu nekk président de la République du Sénégal. Hmm. loolu du inédit la musul am Sénégal alors fal nañu leen ñu ngi jiite def nañu téeméeri fan sànq yaa ngi koy junjoo euh, appréciation ban nga ci def de manière globale tey s'il fallait les noter le tandem Diomaye Sonko. mooy bari na lu ñu waxoon te defuñ ko. comme waxoon nañ appel à candidature amut. ñañu faloon sa ci appel à candidature ñu ngi leen fay génne dégg nga agropole la fa xew beneen bi acte bi ma xam ne daal euh, constaté naa que ni c'est salutaire c'est à saluer. ndax lu ne fàng la mooy la présence de la jeunesse. bari na ndaw yu bari ñu fal même bu fekkee ni damay attirer seen attention. fal ndaw directeur fal ndaw PCA des risques d'échec bari na ci parce que PCA souvent. mooy joxe l'orientation mooy valider expérience da ciy am solo. ndaw yooyu ñu ko fal nag du xeeb leen mais pour ñaax leen qu'il soit regardant mais nag mel na nit ñi door a falu fonkuñ loolu jigéen soo xooloo li ñu jël ci jigéen matul vingt pour cent te nag réew mi. xool ko rek barki démb Njaay li koy firnde concours général ku jiitu jigéen jigéen ñi ci réew mi góor ñi mënuñ leen ci liggéey suñ mënul góor ñi suñ dem bay fal nag bi passé conseil des ministres passé ba y avait quatre-vingt-un nominations sept jigéen la présence des femmes pour man est très minime loolu c'est des choses à corriger ndax li ëpp ci population bi ay jigéen lañ il faut bu ñu leen di responsabiliser ñu àgg ñu àgg ñu àgg à ce niveau beneen bi mooy famille ñoom ŋàññooñu man dérangé wu ma. Mm. ma bo nga bokk ak sa frère ndey ak baay ngeen am compétence yi ñu fal leen mais su ma ko ŋàññilee Macky Sall waruma ko nangul Diomaye Faye Alioune Sall li ko xañ mairie lu ci bëri digganteem la ak Macky Sall rakku Macky Sall la ñuy wax Mansour Faye lu ci bëri tax ñu singi leen ko parce que frère Marème Faye Sall. goro président. beneen bi aussi wane nañ ni Macky Sall li fi def ñoom ñu ngi ignorer ay doomi yu jurul dégg naa El Malick ba mu demee ca BRT ba mel ni kuy daanu leer en terme de structure innovante mu saluer avec l'économie propre li BRT bi uti na la mu waxoon nag démb ak barki démb bref suñu gars yi pétrole bi bi njëkkee génn moom Ousmane moo ne ñu ngay manque pétrole bi du yóbbu. ministre am génn ni baril bu njëkk baa ngi dem wan ko président de la République kon lañ doon wax yëpp ñoom seen ñëwin dama ne si yàlla ku ay la parce que su président ñoom bu ñu ñëwuloon gars yi ñu xam ne aayuñu dañuy continuer rek di yaakaar bari na tey waxuma ni amuñu ñu jóge fenn bëgg ñëw ci ñoom de waaye bari na ku leen supporté woon démb mu jaral ko xeex xuloo mu ngi ciy tey tey ndax bari na lu ñu waxoon génn ca wane nañ itam mbir mi liggéey la fayu muy say confrère muy ci presse bi ña nekkoon ci terrain bay xeex cër nañ leen dégg nga barki démb incident bi naroon am RTS ñu ni parce que bokkul ci combat bi c'est dangereux et clivant ci ñoo xam ni ne nañ dañuy jub jubal jubbanti leneen li ci feeñ itam mooy bi ñu defee seen déclaration de patrimoine gis nañu jomaay ñàkkul néew na si fonctionnaire bu bokkul ci ñoom seen régi li muy wane rek mooy jub jubal bi mooy réduction des comptes yi dama ci d'accord dama ci ànd mais jubbanti bi mooy que ni fonds communs yooyu